mais su ma neexee ma rab ko. ma neexee ma rab ko. ma gën a ay kaana rab ko ma gën ay kaana rab ko. lu mel ni kaana yi ñëw <laughs> kii mooy Exidex <laughs> sama xarit la euh, kële mooy Alfi <laughs> oui. waaw kon dinañ def fii man pour mën. ah non yow tam rafet mon Kaana kii ma toog Kaana bu ma wàññi nag. may wàññi. yow ñun ñu nekk sa ginnaaw ngay daw des doo dem rek ñu topp la. jaajëf waay. lan la waxoon sànq sax battel waa battel nga soo waxoon nga battel kenn. kon baax na mosuma wax yaa ko fi wax. si si ba pare nee nga yaa dàq rek man mosuma wax lool. nee na moo la dàq rab. nee na moom moo la gën a mun a way. voilà nee na yow mbuusu këmax nga. waaw. <laughs> waaw nee na bañ fanaan nga. nee na tàppet suusal nga. lii lépp la wax. léegi loolu yëpp dañ koy régler far far yaa ko wax wala waxuloo ko. jëlal ton baat bi. Hmm? mais maa ko wax. <laughs> yaakaar mais léegi da nga koy wane du yem si yow mënuloo rap ma dama ko teg ci blip ci biit bi boole ko ak flow mu daal di neex gars yi consommé ko maa la daxarat maa ko wax eh, damay xëy sa tëdd di matin di bégal waa Sénégal ñu may wax ma leen di may xaalis ñuy jël di enjoy waaw na fayu dama koy bàyyi dama koy bàyyi bàyyi il a besoin de faire ses preuves quoi si rab bi donc dama koy bàyyi ba si kanam a kanam boo demee ba gën a aay après nga ñëw ex yow doo ko faral. non si biir bu dewee si biir bu dewee wax la ko. day wut buzz rek day wut buzz rek xamal ne fii mooy buzz la fële mooy fii Eh, soo ko fi sànq loolu de. yaa man fi ma làqatu kon du foofu ah. du foofu de. Ah. juum nga de. ok yow ah, làqatu ginnaaw jigéen ñi rek boo gën a wër. waaw waaw waaw <laughs> a <laughs> ça bu ñëwee mu jàpp kooku ah. ayca <laughs> euh, Canabasse moo ñu rejoindre ci Yeewu Leen bi on discuter avec lui quelques minutes